Seck yaa jiite partie mii di réew mi ginnaaw bi njiitu réew mi wootee euh, yow la njëkk dalal lan lañu mën a jàppandi ci waxtaan bi nga xam ni moom nga amal ak njiitu réew mi jamono ji waaw d'abord euh, ginnaaw bu ñu nuyoo askan wi yëpp di nuyu mbokku Sénégal yi ci biir réew mi ak yi ci diaspora bi euh, li ñuy njëkk a def mooy ñaan suñu boroom mu wàcce saafara su faj jàngoro ji wàcceel ñu it ay xéewal am koom mu ñu tàggaleeg jafe-jafe yi ak ñàkk gi wàcce aussi bépp xeetu njariñ buy dàq lor loolu ñun ñépp ñu maase ci ku nekk ci li nga gëm ak li nga yaakaar nga dellu ci ñaan yàlla pour mu musal ñu ci jàngoro bi li nga xam ni lii président de la république def na ko muy woo ñépp askan wi yépp yamul rekk ci lider politique puisque jàngoro bi moom ñëpp la concerné xeex bi ñëpp la concerné te jàngoro bi daf cee am loo xam ni lii lu lu simple la mooy amuñu vaccin amuñu garabam te it jàngoro bi amul tànk amul laaf nit moo koy jox nit donc sorewante gis ngeen bi ñu bi ñu ñëwee dañoo dàndante puisque loolu la situation bi laaj mesures yi ñuy jël yëpp pour fagaru la pour fegu la avant ñuy obligé di faju ndax système de santé bi même bu doon système de santé bu baax ak pays développé bu malade yi baree rek jaaxle daal di tàbbi gis ngeen situation bi am Italie donc ñun ñëpp ñoo war a mobiliser nekk benn jëmm pour xeex jàngoro bi di ñaan yàlla mu musal ñu ci di euh, xalaat bu baax yitam suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci jaspora bi di bëgg ci li nga xam ni président bàyyi na leen xel ci biir programme bi que ñoom ñoo daan liggéey di yónnee Sénégal tey ñu nekk ci confinement nekk ci ay jafe-jafe yu metti donc ñoom tamit jar nañoo bàyyi xel ci jumtukaay yi nga xam ni ñoo ngi koy fexe pour xeex euh, jàngoro bi di ñaan ñëpp ñu tënku ci tegtal yi metti na puisque ñun suñu aada ak suñu culture li ñu xam mooy saafoonte dem dikk ku nekk di di di jàppale sa moroom ci jamono bu nekk ñuy jaxasoo di daje wante nag lii suñu boroom moo ko moo ko wàcce ñun ñëpp ñu fexe rek ba topp tegtal yi nga xam ni kër docteur yi joxe joxe nañ ko di euh, gërëm ñëpp di gërëm personnel de santé bi di leen gërëm yéen journalistes yi maa ngi suivre plateau yëpp vraiment ñëpp a mobilisé donc euh, di di bég bu baax ci li nga xam ni moo am ci peuple sénégalais ñëpp bokk ndey bokk baay pour xeex jàngoro bi jërëjëf euh, Pape Birame mu doon ko euh, nga ñëwoon tey wuy si woote njiitu réew mi ñeel xeex bi nga xam ni mu ngi woo askan wi yëpp ñu booloo doon benn ngir jàmmarloog Covid 19 bu weesoo jàngat bi nga mën a am eh, ci woote bi ak ci mesure yi nga xam ne njiitu réew mi annoncé na ko démb ban taxawaay la ñu mën a xaarandi ci Pastef mu ñeel eh, eh, doxalin bi jëm ci xeex boobu njiitu réew mu sumb tey. waaw xam nga xeex bi buñ ci tollee moom defe naa waratuñu di sax Pastef wala APR wala PDS parce que. c'est le citoyen sénégalais ki est menacé kon euh, teewul it organisation bu ne moo xam daayira nga moo xam association sportive ak culturelle nga moo xam parti politique moo xam syndicat nga comme ay mbooloo mi ngi sa biir di nga am loo ci def loolu nag ñun xaaruñu ñu invité ñu fii pour def ko ndax euh, jàpp naa ni bii mbir mi dooree ba léegi euh, mesures yi nga xam ne jël nañ ko jàppoon nañ ni mesures yooyu la waroon jël te wax nañ ko publiquement euh, wax ko ci ay vidéo bind ko euh, ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun jox nañ leen ay ay ay ay ay tegtal pour que mu am lu ñu def euh, distribuer ay produits yoo xam ne pour gel yeeg ñoom seen sensibiliser nit ñi def porte à porte defe naa am na luñ ñu ci jot a def waaye li ëpp solo mooy ñu jàpp ni mbir mi kenn waru ci xaar kenn kenn warul yaakaar ni euh, diw la gën a concerné que diw parce que virus la mooy ab mbindaafoon la boo xam ne kenn ci ñun mënu koo gis ci bëtam waaye moo ñu mën ñun ñëpp te ma ngay wër doore na ci yeneen réew faagak nga fa nit ay bakkan yu bëree bëri tey Italie euh, egg nañu yenn saa yi ay 700 morts par jour Espagne sorewul foofu France gis ngeen li fa xew Chine bi mu dooree woon gis ngeen li fa xew dugg si na Sénégal ñu ngi sant yàlla bakkan rotagul may profito di félicité ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu woowu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu santé amuñu seen fay yàlla rek leen mën a fay ndax condition yi ñuy liggéey jafe na waaye gis ngeen taxawaay bi ñu ci am euh, waaye comme dugg si na te day law ñun ñëpp ñu war cee bàyyi xel parce que léeg Sénégal dañoo xaw a mën a neenam te bu mbir amee au lieu ñu déglu ñi nga xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc ku nekk day wax soo xoolee réseaux sociaux yi soo xoolee truc ñi naan soble dina ko faj xaw laaj ñi naan lii ñi naan laa defe naa mbir day taw am fu mu toll eh, ñi seen xam-xam màcc ci loolu rek lañu war a laaj mooy ñi ko xam médecins yi rawatina virologue yi ak épidémiologiste yi ñoom la ñu war a déglu ak recommandation OMS yi ñu bàyyi di neenaal it jàpp ni feebaru tubaab la mënul dara si ñun ndax egsi na te gis nañ ko démb gis nañu benn musicien bu mag a mag a mag di nit ku ñuul di maddu di màggo te bakkanam rob na ci bu loolu weesoo nag li ñuy wax mooy euh, lii rafetlu nañ ko euh, bi ñu ñëwee ñëw nañu andi suñuy gannaaw rafetlu lenn ci liñ jotoon def li ñu wax démb te yéegal ko Sénégal yi amoon nañ ci ay mbir yoo xam ne jàppoon nañ ni leerul suñu bopp ñëwee toog nañu waxtaan ci laaj ci liñ ciy laaj ñu tontu ñu liñ ciy tontu euh, bokk na ci fan la xaalis bi di jóge parce que jamono ju mel nii jamono crise ci àdduna bi yëpp réew moo demoon ci réew bul daan dimbali mooy moytul mu gàntal la parce que am na lu ko doy ñun suñuy réew dañoo néew doole néew doole gi nag dafa lalu ci lépp dafa law ci lépp ba ci suñu banque centrale gis ngeen banque centrale Europe wala bu États-Unis ay milliards et milliards la ñu génne ñun suñu banque centrale mënul génne xaalis mu des ñun lu ñu war a mën a ut ci suñu bopp li ñu jëlee ko suñu lempo mooy suñu budget la leen ñu dem jéggaani ko mooy lebi yooyu itam laaj nañ ci ay laaj mu am lu ñu ci wax ñu dellu siwaat am lu ñu laaj ci lu jëm ci lu war a jàppale Sénégalais yi cinquante milliards yi jàpp nañ ñi dafa xaw a tuuti am na lu ñu ci waxtaan également ba tënk ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni ma ko waxee ci tubaab bi defe naa jarul ma ci ma koy faram-fàcceewaat yëpp ci détail waaye li ma mën a wax rek ci tënk mooy li ma waxtaan ak président Macky Sall mooy lii su ko defee mooy dafa bëgg consensus am ci gestion crise bi consensus bi nag nun xaaruñu lii ñoo ngi ci tànk jàpp nañ ni mesures yi ñu jël mesures yu baax la bu ñu gisee safaan wit amul crise amul ñàkk crise nañ ni lii ànduñu ci wala lii jëmul ci fu mu war a jëm bu ñu jotee plan bi nga xam ne nag parce que moom démb dafa yéegle rek waaye plan bi bu ñëwee xanaa am na ministre yu koy togg dinañ ci gën a xuus am na ay propositions yu ñu àndaale woon wax nañ ko ko dinañu xool plan boobu dañ ci war a apprécier nañ ko apprécier waaye li ci ëppoon solo mooy won sénégalais nii Sénégal moo soxla Sénégal moo wootee guerre la ñu nekk guerre du rek ab armée bu ñëw di la song waaye lii ci guerre la bokk kon képp kuy doomu Sénégal da nga war a bàyyi de côté euh, yenn considération yi ñëw jàppante ba lii jóge fi leneen lu ci nekk ku nekk dellu fu mu nekkoon. jërëjëf Ababacar Sall yaa jiite parti bi euh, di taxawu Ndakaaru wax nga ko ci say kàddu jamono ji du jamono joo xam ni dañuy xëcc mbàjj mi ku ne di ko jëmle si sa boor jamono yi mbooloo la ginnaaw bi nga waxtaanee ak njiitu réew mi yan kàddu. nga ñu mën a dénk ci waxtaan bi nga xam ne am nga ko ak euh, kilifa gi. jërëjëf taxawu du parti jiitewuma parti mais ànd bi ñu ànd ay góor ak jigéen lañ yoo xam ni dañu gëm réew mi ñu ñëpp ñu gëm ni am nañu lu ñu war jëriñ réew mi lu ñuy apporter réew mi pour son développement fii Sénégal moo woote. àdduna bi yëpp sax la lii daal mais li nga gis comme lecture mooy que ni ñëpp xam nañ ni ànd booloo juboo déggoo mooy lii solution mooy réponse mooy solution ba tax na ñu ñëwoon wuy si ci loolu waxtaan wi ñu waxtaan ak président ci loolu la sukkandiku nan la ñuy fexe ba pandémie bi Sénégal mën ko affronter ba doon affronter ko de manière efficace loolu la ñu waxtaane du li nga wax kilifa na nga génnee ci biti mais li am solo mooy rafetlu nañu mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko yaakaar nañu gëm nañu sax ni ça dans le bon sens c'est les bon mesures et que su ñëpp taxawee juboo déggoo ànd yàlla mën nañ ci may ndam parce que looloo am solo parce que lii nga xam ni dafa dal àdduna bi yëpp ku nekk xam nga ni jombul kenn tànnul ku muy daal ku nekk lay daal donc fagarlu am taxawaayu mat am taxawaayu déggoo loolu rekk ñu ci mën jële moo tax félicité nañu gouvernement bi ci li mu def wax nañ ko suñu xalaat pour mu gën a efficace mais dañuy gërëm ak sant méttit lu Sénégal yi nga xam ni dal na leen félicité corps médical bi masawu diaspora bi nga xam ne ni mu koy vivre metti na et engagé sénégalais yëpp ñu xam ni jombul kenn te kenn mun ci rëcc mais suñu àndee rek yàlla mën nañ ci defal sutur. Merci euh, dans le bon sens. Ce sont là les ko waxee yaa jiite parti bi di grand parti euh, mbébétu njiitu réew mi mooy ñëpp booloo doon benn ngir jàmmarloog euh, Covid 19 ginnaaw waxtaan bi nga xam ni amul nga ko ak moom lan lañ mën lan lañ ci mën a jàppandi tey. waaw ginnaaw bi ma euh, sant yàlla bu baax gërëm naa président de ci li nga xam ne nii tey jii taxawaay bu am solo bi mu def bëgg jël réew mi yëpp ñu ànd liggéey pour xeex li nga xam ne nii mooy jàngoro ji lëmbee àdduna bi. lëbbe Sénégal ñëpp xam ne tey jii lu toll ci ñaari milliards yi doomu aadama ci àdduna bi ñu ngi leen tëye ci seen kër ndaxte feebar bi fu nekk lay dugg ku nekk la mën a gaañ te amul seetlu ci kilifa ak keneen loo xam ne ni nag tey jii bu dalee Sénégal mën a gaañ Sénégal ñun Sénégal yépp ci war a ànd juboo bokk ndey bokk baay dañuy wax ne tey jii bu Sénégal soxlaa kenn bëggatul dara ñëpp ñoo war a ànd boole suñu doole doole ji nag boole ko mooy def li président def tey jii ñu nit ñu nit ñu génne fii def ko ak askan bi ñu àndal ak Sénégal yëpp pour que ñu ñëpp ñu ànd xeex li nga xam ne nii mooy jàngoro ji. jàngoro ji nag xeex ko mooy li ci autorité sanitaire yi wax gouvernement bi wax ko adduna bi wax ko mooy jël ay matuwaay parce nag. bu ñu jëlee suñu ay matuwaay fagaru yàlla mën a def feebar bi bañ a daan Sénégal nañu fexe donc ba daan feebar bi te buñ ci jógee Sénégal gën a am doole Sénégal gën a yëkkatiku ndaxte Sénégal rek moo am solo xeexal Sénégal rek moo am solo kon nag ne Sénégal yëpp ànd bokk ndey bokk bàyyi ñu ànd liggéey pour xeex bi jóge biir réew mi ba pare jóge aussi ci àdduna bi yëpp pour jàmm mën a si ci askan bi pour que ñu mën a liggéey suñu réew ci anam ñu gën a rafet waaw maa ngi lay remercier di wax ne xam nga euh, lii président bëgg moom la Sénégal yëpp bëgg te je crois que euh, bu ngeen seetloo sax euh, ci début jàngoro ba léegi bureau politique grand parti lu bëri wax na ko ci ba ñaan nañ président sax mu décréter état d'urgence sanitaire waxoon nañ aussi ne nañu fexe ba doole réew mi yëpp jël ko teg ci loxo président de la République pour que moom mu fexe ba feebar bi gën a néew Sénégal bu fekkente ne aussi dugg na fi ba pare et loolu moo tax tey jii euh, loi d'habilitation bi nga xam ne ni dañ ko war a voté assemblée nationale bu neexee yàlla du ma jógee fii euh, grand parti parti démocrate la euh, dinaa woote réunion rapidement te réunion bi sax xam nga mënu nekk réunion comme réunion habituelle mais dinaa consulter les membres du bureau politique pour que li nga xam ne ni moom le président bëgg mooy assemblée votel ko loi d'habilitation bu pour que grand parti aussi voté ko bu neexee yàlla ñoom tamit gëm naa ne instance parti bi dinañ ci d'accord mais au la de cela sax eh, dafa fekk ni grand parti am nañu ay experts yoo xam ne nii ku mel ni docteur Georges Diouf bi nga xam ne nii spécialiste de des maladies tropicales et infectieuses moom ak ñi mu àndal ñoom ñëpp dinañ ñaan président de la République mu dugal leen ci comité bi nga xam ne nii mi ngi xeex tey jii jàngoro ji ci réew mi. ba pare aussi xale grand parti yi dañu lancé initiative bu nga xam ne nii dañu bëgg jël xale yu ndaw réew mi yëpp ñu bokk seen boole seen doole ànd ak madame la ministre de la jeunesse. pour que ñoom ñu ànd xeex li nga xam ne mooy jàngoro ji pour que xale yi réew mi taxaw bokk ndey bokk bàyyi taxaw boo ko ëllëgee lépp lu nga xam ne nii loolu ñu soxla ci mobilisation jeunesse bi bu ko personnel médical bi soxla ñu mën a taxaw ci gox-goxaan yépp jàppalante ba xeex bi mën a euh, am solo ba yàlla def ba li nga xam ne moom ni Sénégal soxla mooy xeex coronavirus ba mu jógee ci réew mi yàlla mañ ñu ci ndam kon nag mën nañ am njort bu rafet. ne bu neexee yàlla eh, eh, député grand parti yi nga xam ne nii parce que xam ngeen ne grand parti am na ñetti député assemblée nationale et eh, bu neexee yàlla loi bi nga xam ne moom la président soxla daañu ko voté ndaxte voté ko mooy défendre Sénégal voté ko mooy jàppale Sénégal voté ko mooy soowee Sénégal ndaxte bu ñu sauvéwul Sénégal ci jamono yi bu ëllëgee histoire bi dinañu ko laaj ak future génération dinañu ko laaj loolu moo tax mbooloo mooy doole yàlla yàlla saxal mbooloo ci biir mi. ba Sénégal am ndam ci li nga xam ne nii mooy épreuve bi ñuy dund tey ci coronavirus. biñ la nuyoo jox la sa wàccuwaay gis nañu dem njiit réew mi jàk jàmmarloog askan wi. Euh, annoncé itam ay mesures tey mu jël dogal dalal leen waxtaan ak yéen ngir ñëpp booloo doon benn ngir xeex feebar bii di coronavirus ban jàngat nga mën a am ci euh, jéego yi nga xam ne njiit réew mi teg na ko ba ci di leen dalal tey. waaw ngeen baal ma bala may tontu foofu ngeen baal ma nasaraan yi xam nga loo jàngul di ko làqar ci moom eh, chef d'état bi moom pour ma wax ci moom sax day xaw a jafe <laughs> ndax ne war naa bu ma ñëwee moom damay kii damay audience bi dama koy xàjjale sept minutes yu njëkk yi nekk xuloo waaye comme daf maa dominé Euh, moom ma wax ci moom du porté ndax je l'aime beaucoup wane naa ko nu ne waaye ba ma duggee li ma ko njëkk wax rek mooy da ngay am ndam nee naa ko itam feebar bi fii du fi avancé Sénégal na sa xel dal du avancé waaw sama conviction la donc li nga xamante ne bii parce que moom mi ngi ci continuité am rek waaw président Macky ku ko xam moom daanaka lu man di xew itam même comportement même attitude xanaa ay ajoutement dina ci am ay yooyu rek yu muy yokk mais lu man di xew itam moom. Ah, mi ngay ko dalam hmm? mi ngay expérience am mi ngay ko njàmbaaram hmm? mi ngay itam bëgg askan wi surtout stress bi nga xamante ne bii mooy xew loolu dinaa ci profité wax Sénégal yi nit fal yatawakkalil mu'minuuna alallah nit dafa war a ñeme ragal baaxul ragal baaxul waaye bu ma nuyoo kii mbaa bu kii sëqatee man bi ma avant may génn damay damaa ñaan ku tedd ki ne ko bu ma fa sëqat ndax sëqat day bette te boo sakkatee maa ngi ji ñoo ne mu ngoog donc nit dafa war a ñemee waaw faw fal yatawakkalil mu'minuuna ala Allah te dee kenn mënu koo daw waaw wala kuntum fi burujin mushayyada kenn mënu koo daw Macky moom dañu koy ñaanal rek dëgg la sax Serigne Sane koy ñaanal waaye man nag maa ci raw ndax maa demoon ba Thiès jàpp ci loxoom yëkkati ko waaw maanaam damaa doon koo xamante ni bii man du ma defantu du ma jàppantu bokk na ci li ñuy xaarandi ci yéen jamono ji muy euh, sensibilisation ñeel naka lañuy def ba sàmmonte ak euh, charte yi nga xam ni nguur gi mu ngi koy jël maanaam respecté euh, geste li ñuy wax geste barrière ci foofee ban sensibilisation ban appel ngay lancé ñi nga xam ni tey ñoo nekk si ginnaaw waaw mooy mooy respecté ko rek mooy respecté ba nekk citoyen kay nekk républicain am état am sa chef d'état état bi am lu mu dogal ci ndigalu chef d' état bi citoyen bi ak républicain bi kay lu mënoo waroo def lenn lu dul respecté ko loolu moom man nag dafa am beneen façon bu may wax ak sama njaboot sama njaboot dafa bari ñoo xam ni dafa bari ay daanukat li ñuy tuddee daanukat <laughs> waaw moo tax beneen façon laay wax ak ñoom mais fii li may wax rek pour tout le monde mooy un citoyen moom dafa war a respecté dogalub état <laughs> kooku moom. neneen na may waxee ñoom nag ñoom boobu maa ko xam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm ah président de la république nag recevoir la honneur la man nag dama fi ñëw ngir député la ngir dama yore parti ngir dama mosoon na nekk candidat mais yooyu yëpp dama ko teg de côté dama fi ñëw en tant que citoyen di wax nag ne dañu nekk ci guerre. te bi ñeent ñoo ko yore mooy général bi joxe stratégie bi muy président la république jël na ay mesures am jaaram wàcc na ñun ñoo ci des beneen bi mooy ñi nga xam ne ñooy scientifique yi muy médecin yi dañ leen war a dooleel ba ñoom du ñu manqué dara en terme de combinaison yi ñuy sol masque yi ñuy son infrastructure yi ñu war a am ak seen lépp loolu mooy la priorité des priorités beneen bi mooy ñun nit ñi nga xam ne ñii jot nañoo feebar ñii jotuñoo feebar ñii jot a feebar ñu ngi leen di fàcc mais ñi nga xam ne sentir nañu dara ci ñoom obligation la ñu wanewu pour nit ñu bañ a tas beneen bi mooy ñi nga xam ne feebaraguñu encore que d'ailleurs kenn mënta wax ku feebar ak ku feebarul parce que virus bi noonu la demee yow mun nga taxaw dara du la jot nga defe nekk ci fekk virus baa ngi sa biir parce que contamination communautaire xës na bi am bu ko defee ñooñu nañu toog seen kër ba li ñuy génn rek ñu seet ne ñàkk ñàkk mënut a ñàkk mais bu munee ñàkk nañu toog parce que yow bu fekkee ne dara dalagu la nga toog sa kër mais saa waay yaakaar naa ne lu bëri du la dem donc président la mu war a def na ko ànd nañ ci te dinañ ko jàppale. ñun li ñu war a def aussi dañu ko def professeur bokk nga ci ñiy teewal askan wi ci euh, pencum ndaw réew mi euh, ci foofee tam euh, ban taxawaay ngeen fas yéene amal rawatina ci projet de loi bi nga xam ne njiitu réew mi fas yéene na ko jébbal député yi. waaw président moom waxtaan nañ ci bu baax defe naa ne du man maa fi njëkk ñëw am nañu ñu ma jiitu mais man mooy waxal sama bopp dama ñaan projet de loi boobu. ñu wote ko ñëpp wote ko benn mais ñu yaatal ko aussi parce que damay dégg ñu wax état d'urgence sanitaire loolu amul parce que mbir mi du problème mu santé c'est un problème global état d'urgence la binduñu fenn état d'urgence sanitaire état d'urgence la ñu bind te bu ñu nee état d'urgence nag mooy nit ki danga koy bàyyi dooleel ko pour ñetti weer mu seet xalaat nit ñi jàppale ko la war a def mu def maa leen maa ngi